sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas bokk yi gën bu ñu sante suñu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yal na nu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp di dénk képp ku nangu ñu maase gën a fab suñu tànk teg ko ci taqwallah te sàmmoonte ak i ndigalam te di ko jooxe waxtu wam ni ko digale jaarale ko ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te di ca tànd ak a ak payam yàlla na ko yàlla nangu te kenn ku ci nekk taxaw réglé boppam bala ñu koy réglé ëllëg ñu xam ne dund gu teey koo xam ne kenn du la joxañ kenn du la tuumaal doo wax kenn teg ca baat amut fii faala am la ko fay may nit nag <clears throat> laajoon nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit a ne ko yaa rasulallah lan mooy imaan mu ne ko mooy looy def na yàlla tax bul ci sedd kenn bul ci sedd ñenn bul ci sedd fenn saa bu def ko jotee na ko def mu ne ko yaqiin nag li may dégg mooy daal mu ne ko looy def na dëgg nay dëgg ci yow na nit ki dëggu moom la alxuraan di wax ne ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci gëm yàlla gu wér boole kook di ko jëfe ci seeni ciir ñooñu ñooy gaaya seen pay ëllëg mooy ajjana ji ñuy wax àdd bu ñu fa duggee dutuñu fa génn mukk la ko waral mooy radiyallahu anhum wa radu anhum moo tax yonent bi ne ku fi bàyyikoo sallallahu alayhi wa sallam ku bàyyikoo àdduna dundam gépp mu tegoon ko ci ixlaas li muy def lépp yàlla tax boole kook ba ko julli waree ba mu faatoo faatu fi waxtu doon na liggéey di génne asaka weeru koor wu ñëw mu woor ko fexe na ba dem makk ci alal ju teey nee na kooku bu génnee àdduna yi nit ñee ko ñàkk daa mel ni waaye am na ngërëmal suñu borom day dugg ci radiallahu anhum wa radu anhum inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan radiallahu anhum wa radu anhu jëf nag bu ko yàlla santaanee wala muy ak naafilaam na ñépp xam ne nun gën a rafete su nit kii dem moom la yóbbaale ëllëg mooy doon ab yóbbalam mooy lay dox digganteem ak fa kenn bëggutan am ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal moo tax suñu borom man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa lu waay def boppam yonent bi sallallahu alayhi wa tënkal nu ko ci lu gàtt loo xam ne ku ne mën nga koo gis bis bu set nee na <clears throat> dundub adduna daa am fu muy tàmbalee ak fu muy yem benn boroom xam-xam suñ Masamba Jóob Saam dañ ko ne suñ Tuubaa yi nekkatu fi booba ma nga gamoon mu ne alhamdulilah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ne ko yaar yooyu lu muy ànde mu ne alhamdulilah ji mooy tegtal nañu ba ñu ngi seen dëkk ba te duñu wàññi ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku dégg ñu ne ab jullit bàyyi ko ñu xam yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat te diw gane na àdduna joo dégg lu mu yàgg-yàgg bàyyi ko na àdduna moo cay topp bàyyi ko na àdduna nag bi sallallahu alayhi wa sallam neen nit ki bu fi bàyyi ko bañ di ko yóbbu ñett ci koy topp ñett euh, waaye ñaar yi dañuy naan kuut dëpp buñ noppee ca la def ñett ña koy topp mooy alalam waa këram ak jëfam alalam bu dee ñi ñiy dox ci diine ca lañ koy waajale ci alalam lañ koy waajal moo tax bu ñu toppatoo gannaaw nit dañ daan jàngale ne tàdduwu mu lañuy ñuy ci alal ji tàdduwu door caa teg mu mooy waajal ko ci mooy taag gi euh, daal gi mooy fayal koy borom waaw gi mooy wasiya miim gi ñu soog a nee na nag su faatoo bañ di ko yóbbu ñett koy topp alalam waa këram ak jëfam suñu ko dencee ba noppi ñenn ñi di wax suul am na ñoo xam ne lañ koy xame ñenn ñi xamee ko suuturaal ko ña àndoon nag moom ñépp di ay xarit ak wëllëreeg njaboot ak dañuy wàññi ñoom mën naa am sax dugg ci ay wotaam alal la ma alal ja mooy oto yi ci la bokk dañ koy teg ci otoom ànd ak xarit yeeg wëllëreeg dëkkandoo yépp ak ña ko man ne ko yàlla man loo ñépp te bëgg lu baax waaye su noppee nag alal jaday wàññiku dellu ca dëkk ba njaboot gaag xarit jaag ñëpp delluwaat ca dëkk bàyyi ko fa moom képp ak kan jëfam yàlla na doon jëf joo xam ne ju baax la ju mel na war a mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bàmmeel moomu ku ko xool ci dundu àdduna da nga ko gis mooy jéggi frontière nit dina jéggee ab frontière noonu xelam dana dal ci réew mi mi muy dugg waaye léeg mu dugg fu ci jéggi wi ni yoo xam ne li muy far bëgg sax mooy wàññi quoi te frontière rek bàmmeel wuute na lool frontière mën na wàññi nit ki mën naa wàññi ko boppam waaye bàmmeel amul wàññi quoi ngi mel ne gémmuñu ko yeew rek war na la man waaye mënut a génne suñ tuubaa nag bi mu koy leeralal nga nangu woon a dégg ay waxam def na leen ne maa ngi leen di dénk ngeen def seen yitte li leen di li leen di gunge ca bàmmeel te di leen te di leen fa wettili bala ngeen caa dugg na ngeen sax ci iimaan islaam ihsaan nee iimaan imaan mooy nga bañ a wutal yàlla kenn ku koy dendandoo ak moom wala luy dend ak moom ci man-man ci sañ-sañ ci lépp la mu àndal bul am dara ba ne diw moom ma ko jox wala moom laa ko ñaanoon déedéet yàlla nee ko islaam mooy nga bañ a bàyyi dara ci lislaam santaane li fekk yaa ngi koy man li fekk yaa ngi koy man nag mooy demala dema dem ba nga xam ne say bokk amatuñ ci yow yaakaar mënatoo yëkkati mënatoo tër mënatoo teg te booba foofa bokk yi am naa ci ponk ci ponk lislaam yi boo xam ne du taxaw moom li fekk nit kaa ngi nooy du taxaw da koy nekk muy julli juróom-ñaari melokaan ni ñu wax ne mënta ñàkk ci julli ñeent yi moom daa war ñett yar boo mënul ñeent yi def ñett boo ca man def ba ca mujj ñett yu mujjee mooy nit ki su mënta taxaw temm ba ñu wéeru fenn lislaam du ko ne mënatoo ko de dafa naan wéerul ci kenn bi ba mën a taxaw su mënta taxaw temm mënta taxaw wéeru mu ne ko toogal boog wéeru ci dal bi boog toogal ba ñu wéeru boog gàpparu su ko mu ne ko wéerul ci bi boog ndax nga mën ko lépp kat julli nga taxaw di ko xaar su fekkee mënu ci yaar yooyu lenn mënta toog gapparo ba ñu wéeru munta wéeru mu ne ko xanaa man nga wetu ndeyjoor boobu mu ne waaw mu ko tëddee ko tey junj rak rukon yeeg sujjóot bu ne wetu ndeyjoor ne ko càmmooñ bi nangu na mu ne acca di la noo jëm baax la su ne munu ko jaaxaan mu ne ko jaaxaanal bokk tey junj foofu nag bokk yi ko fa àgg ay bokk amatu ci moom yaakaar am na ñooñ nag seenu naat jëmutoon ci waxtu julli jot am na suñu faatu yóbbaale wu ñu waxtu wu ñu warut a julli dem nañ ba xamatuñu seen njaboot doon nañ ci tudd ku ñuy wax suñu baaxaar dem na ba doomam ne ko yaa ma jur mu ne ko yow la kan mu ne ko mën a diw mu ne ko ah ndax mas na ma am doom ñu man moom waaye taxut fam yamoon démb ci wax fam du ko fàtte waxtu jullit kenn du ko fàtte loolu nag bokk yi dañ koy tàmm ca ba ngay man def ko ci sam xel foo jëm jëm faak moom adduna lépp ko la te kenn du fi des bokk yi ñun ñii fi toog ñi ñëpp feeg ñaar téeméeri at dana bari ñun ñoo xam ne daañu leen fàtte feeg ñaar téeméeri at mooy l'an deux mille cent soixante treize feeg téeméeri at mooy l'an deux mille cent soixante bari na ñun ñoo xam ne des na leen fàtte cinquante ak l'an deux mille deux cent soixante muy téeméeri at ak juróom fukk wala ñaar téeméeri at ak juróom fukk bari na ñoo xam dañu leen di fàtte fañ dëkkoon ñeneen a koy dëkk lañ doon sol day xew yi lañ doon war muy ay woto day xew yeneen oto ay xew yeneen yi ba day amaat ku ci góorgóorlu wutoon ak digganteem ak boroomam dañ koy fàtte ci lu gaaw yi àdduna bépp bàyyiwuma kenn ak réew mu mën a dëkk 1823 amul kenn ku ko fekke woon ci àdduna bépp fi mu ne nii mu ñaatee mi ci ginnaaw amul kenn ku ko fekke woon ñaata nit lañ ca fàtte sori na sax 1960 soo laajee ñi fekke woon ba ñuy fal député ñaata député lañ woon ak kan nga ca xamoon bari na ci ñuy fat moo ne député yu yàggut yii ci deux mille la xawma deux mille bari na ñoo xam ne fàtt nañ seen nitu te matagul sax fanweeri at kon boog àdduna lépp fàttaliku lay doon ñi ciy fàttaliku mooy ñi fi nekkoon nekk fi lañ fa waroon a nekk waaye danañ ci fàttaliku koo xam ne nekkoon na fi te nekku fi lañu fa war a nekke suñ koy li ak njabootam ak i sëtam ak i sa tërcéem sëgg kenn ku nekk nag war naa moytu loolu ak njabootam rik fu waay jëmoon fu dul fa yàlla digle na wàññiku bala moo weesu ku nekk na fexe ba bind aw turam ci ñiy fàttaliku ëllëg li feeg ñaar téeméer at ak nangam yàlla noonu yàlla dafa dégg topp te musal seytaane ak bakkam wa yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin sëriñ bi daal sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey